jam ñaajo am na waxtaan yoo xam ne itam euh, Cheikh Bamba loolu si dooma ni xanaa fekk loo ko xam nga local content bi man li nga li nga tudde contenu local man woote naa ko na nationale mais bul li mu waxtaan naa non xam nga gis nga Pape man li may wax mooy dàquma ni nit ñi toog nañu ñu ngi wax ah, déedéet c'est li may wax man mooy mhm. dafa am lu ko gënoon foofu te mënoon ñu éviter mhm. jafe-jafe yi ñuy jaar mhm. parce que souci bi dëgg-dëgg mooy dañu am opportunité xéewal la boo xam ne dafa ñu mën a permettre déficit yi ñu amoon ak tardement yi ñu amoon ñu jëmp ci kawam jàll avancer donc man souci bi may am mooy souci wu efficacité. si efficacité parce que bu jàllee loolu rek dafay am lëndam parce que bu wéree ni président moomul alal ji man moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk. alal jooju bu ñu jariñulee yàq la. on a échoué ñun ñëpp. Mhm. et c' est pourquoi man may jël ay position tranchée ci affaire bi parce que lu mu ci demee lu ñuy nettaliwaat ëllëg. position tranchée bi mooy lan. position bi mooy. Mhm. mënuma participer ci dialogue bii di dialogue national parce que pour man lii fondement wu réew mi mooy institution yuy dox yuy jaar yoon. man nag jaa man nag man jaaxal jaaxal ñaareel ba ñaareel ba may ma tuuti rek. Euh. ñaareel ba may ma tuuti mënuma participer ci dialogue boobu parce que pour man dañuy fekk. mais danga da nga may doléance. non li nga fi wax ni yëpp nit ñi dégg ko ay doléance la. mais man en tant que da nga fàtte ni man député la. donc mais wax nga problème bi nga am assemblée nationale samay doléance ñi ngi koy weñ ñi ngi koy nangam attends samay doléance dafa am ay bërëb yoo xamee ni fa la gën a jaadoo fa la gën a jekke fa la gën a taxawee. mais munu fa jàllee. non mais attends bu amulee loolu dañ ko war a faj parce que sinon lan mooy intérêt ñu am assemblée nationale di fay ay nit. lan mooy intérêt ñu am institution di fay ay nit bu ñu fekkente ni dañu am justice te justice boobu deful liggéeyam lu dul benn nit moo leen remplacer. ni def la lu neex discours bu baax nga nii ci dialogue bi pourtant. non discours baa ngi nii. mais xam nga discours boobu sa plateau daf ma koy permettre parce que après dem sa dialogue ba ñàkk sa dialogue taxul ma noppi. xam nga lu ma wax. ok dem sa dialogue ba ñàkk sa dialogue ba taxul ma ni parti ci mbir mi déedéet ndax daf ma ñor. daf ma impliqué impliqué sama avenir impliqué avenir u citoyen wu Sénégalais yi ma war cee wax ndax dama cee am cër ci anam bu nekk. d'accord mais li nga xam ne moom la ñu warul nangu. Mhm. mooy mag du nax boppam. xam nga dafa am ay kilifa yoo xam ne ci réew mi boo yëkkati seen tur seen jaar jaar day wax pour ñoom. Mhm. bu ñu leen dugalee ci benn mbir. ba pare mu doon ay caay-caay ci biir dafa am loo xam ne. dafa Famara nga bëgg a wax. ak euh, général ñaa ak ay kilifa yu bare bare ci réew mi yoo xam ne macha allah ci seen histoire ak seen taxawaay xam nga tey jii man nag yow bu ñu fàttalikoo. Mhm. fii la Amadou Makhtar Mbow. ak acteur politique bu Sénégal yépp mhm. woote ay assises nationales mhm. ñu jël kopparu citoyens yi loolu dëgg la dugal ko ci biir loolu am na lii ngay wax ci dialogue national moom lañ fa doon waxtaanee loolu am na yeggul ci loolu ñu fal président bu bees yamul yamul foofu ñu fal président bu bees mhm. ñu indiwaat même composante yooyu joxaat leen xaalisu Sénégal ni leen réfléchir leen pour résumer waat affaire bi mhm. te ci lii ngay wax ci dialogue national moom lañ fa doon wax waaw est-ce que ñun réew mi dañoo war a nekk ci chaque fois ñu wax benn mbir ba passé que mhm. ñu delloowaat ñu ca mbir ma waxaat ko ba mu passé ko delluwaat ñu seen mbir ma ba pare nag ñun ñi nga xam ne am nañu sañ-sañ ak lu si lucidité wu ni duñ ci dem ñu bëgg ñoo bu jóobu boo fee parce que ak affaire bi li tax dialogue bi bon mooy day discrédité acteurs yi ndax bu ñu nee ay wala ñu waxtaanee jàmmi réew mi góor bu jóg ni daw ma ñu bëgg laa dëkkal foo dëkkul jox la mbubb moo moomul te dëgg-dëgg bu fekkonte ni intérêt yi réew mi rek moo ñu tax bu dialogue doon am njariñ moom président de la république mi nangu woon assise national nangu la ca topp tey jii bu bëggoon économiser ay kopparu Sénégal mhm. du woote dialogue d'accord euh, dafa amoon solo ñu aborder ñaari dialogue yi waaye leneen ci wàllu actualité muy le cas de Guy Marius Sagna au-delà de yow ni nga qualifié jàpp bi ñu ko jàpp da nga jàpp ni xëy na euh, ñàkk kaaraange lañu ko bëgg ñàkk kaaraange goo xam ni euh, way takk der yi am nañ ko ci seen biir loolu lañ bëgg a sëf ki nga xam ni moom mooy gii Marius Sagna gis-gis boobu dégg naa nga am foo ko waxee loolu bëgg naa ñu ñëw ci mais ci euh, ni nga xam ni noonu la dese ci kaso bi mu àndoon ko ak ñu bari tey moom kese mu des ci kaso ba ban gis-gis nga am ci ci ci ci wàll boobu. moom laay wax rek moo tax ma ne la nañu taxawal suñuy institution parce que lu jaloo bale am solo am solo la téye Guy Marius Sagna fale mooy institution yu taxawul. ay institution yu faible yoo xam ne nanguwuñu xool situation bi jaaduwul. lan nga bëgg wax ci institution institution yu faible mooy le système judiciaire ak dépendance bi nga xam ne am na ko par rapport au pouvoir du président de la république mooy dépendance bi nga xam ne assemblée nationale am na ko et gis nga gis nga Sëñ Tuubaa dafa wax ne bu sa tànk day métti ngay faj sa bopp bu yàggee dinga am feebaru tànk ak feebaru bopp gis nga problème mu. mais kon bëgg a jàpp ni li Guy def dara nekku si yow. pour man c'est légitime c'est légal. te dinaa la ko expliquer bu gaaw mais damay ñëw d'abord ci principe injuste bi nga xam ne moo ko dal nga bokk ak say nawle ngeen àndandoo doxandoo ci benn barab yegg ci benn barab ngeen am ci même taxawaay ñu génn ñii dem seen kër kenn des fa la jàngale mooy que ni génneeguñu ci xëpp ak xupp maanaam bu ñu la mënulee tiitloo ba nga tàppet dellu gannaaw te mënuñu laa ger ba moom la ñu teg fitna ci sa kaw et ça ce n'est pas acceptable parce que kenn mënul wax ni lay maison blanche mais Cheikh Bamba est-ce que non ma daaneel ma daaneel ma daaneel rek kenn mënul wax ni la am maison blanche am Élysée am ci système démocratique yu mag yi ñun mënuñu cee yegg foofu te ay sénégalais lañu. ok te Guy Marius ak yow ak man. waaw gisuma si kenn koo xamee ni mën ngaa xëyal. wutal fitna léegi léegi Cheikh Bamba Dièye. Mm-hmm. honorable discours bii nga ma tenir tey bu la fekkoon ci gouvernement bi lii nga may wax. je pense que ni benn ba ma ci gouvernement bi am ci cër bi ma ca war a am du ko jàpp loolu moom mun naa la ko wax man bu doon man maay jàppee du ma ko mos a jàpp. ndax man dama am benn problème man dama am problème. dama am problème problème bi ma am mooy man damaa takk sama bopp si buntu assemblée nationale te mënuñu maa àtte. ci biir gouvernement ak bitim gouvernement li ñu ma mën a àttee man mooy sama jëmmi bopp ak samay action bopp te je veux rester conséquent ak li may def mm-hmm. waaw d'accord euh, kon act bi mu posé gisuloo ni acte bu bu ëpp la alkaati yi ne ko taxawal taxawul alkaati yi ne ko jaaral nii jaarul nii mu xëppante ak ñoom loolu tam danga koy danga koy da nga koy rafetlu Pape loolu dama koy rafetlu ndax dafa am lu mu ñu jàngal xam nga yenn saa yi benn problème dina am mu ubbi sa xel beneen problème boo xamee ni mosuloo ko woon gis wala boo ko yaakaaroon yaakaaru woon ni toll na foofu nan la fukki nit ak juróom wala lu ko ëpp wala lu ko yées mën a jóge place de l'indépendance dox dawuñu ba yegg biir pale wala bunt palais amul suffisamment de force de sécurité ci zone boo xamante dañ mooy zone de première sécurité de première de ceinture de sécurité amul lenn loo xamee ne interféré na ci problème la. mais li nga wax noonu rek mooy. joxe dëgg que ni. kon normal na pour ñu jël ci sanction ba keneen bañ ko defati. non différent c'est différent parce que ñaari soci ñaari situation yu bokkul la bii dañuy interpréter capacité d'intervention suñuy force de police bii ñu interpréter liberté citoyen bi ñaar yooyu yëpp benn bu si nekk dañ ko war a natte na mu war a deme bu ñu amee problème boobu li mu ñu njëkk feeñal mooy bu fekkonte ni jaay yàlla la. truand la wala tappalekat boo xam ne amoon na yéene ju bon su ñun bu yeggee foofu musiba mën na ñoo dal muy benn. <laughs> nga ñëw nga ñëw ci li nga xam ne nag mooy. les questions yaa ngi yaa ngi sa bopp comme xam nga ni bu doon keneen. légitimé wu xam nga non non légitimé wu ma ko déedéet déedéet mayu ma au contraire dama war a wan ne ni te ça je l'ai dit aussi bien au ministre de l'intérieur qu'au ministre des forces armées à l'Assemblée nationale. wax naa leen ni leen chaque situation doomu aadama bi daf si war a jàng la nga xamee ne moo ci wàllam mu retenir leçon yam ca war a def beneen bi nag bi nga xamee ne moo ñu soxal ñun mooy ab citoyen ngay fay sa courant ñu xëy suba ngay fay fukki junne ñu xëy suba yokkal la si beneen juróomi junne ngay fay trente mille francs ñu yokkal la cinq mille francs ngay situation boo xam ne inclusion la ñu wax ah. inclusion la ñu wax ah. ñëpp dugal seen xaalis. non non eh, Pape ñëpp jàppalante. non non jàppalante dimbalante. mais charité bien ordonnée commence par soi-même. loolu dëgg la parce que tey jii boo nee tey jii. bay ci sa wew tànk bay ci sa wew tànk parce que yow mi yore état bi. Mhm. yaa ñu waxoon ca at yële passé. ni mhm. mille vingt non seulement sa production électricité day mat sëkk ñaareel ba di nga jaayee électricité ba pare di nga ko wàññi. bu ñu demee ci loolu gisuñu ci dara ñu wëlbati ko gis ni tranche bi ñu naan six cent et quelques millions mille mille mille mille consommateurs yi nga xam ne dañuy ne laalu leen ñu vérifier xam na ni am na zéro sept franc yoo xamee ni soit dañu naan. ci li nga xamee ne mooy électrification rurale la jëm wala boog dafay jëm ci li nga xamee ne mooy part bi nga xamee ne moom la collectivité locale yi am boo ko ci dollee ku doon fay quinze mille francs boo demee ba ca fin ba dina si dolli cent huit cent huit francs yooyu multiplié par six cent mille koppar la ça fait sept cent soixante dix sept millions nga gis ni état bi au même moment boo xoolee facture otoom du standing bi du njëg li moo wàññeeku. nga wëlbati ko gis ni. les institutions